ji ci Sénégal ndakaaru rawatina PDS ak i woote ndaje ci VDN bi foofee nag kilifa parti bi jigee benn fitna ban ca lalu tukkee ci ñoom lu may ñu ne dañ leen a song ca bu boobaa daanu aar seen bopp jamono yi waa mouvement 23 juin woote tey ci suba eh, ci place Obélisque ci Colobane foofu daanu fa feddali seen càkkuteefu Abdoulaye Wade bañ a bokk ci élection 2012 Alioune Tine division investigation criminelle déglu na ko njiital xado lu jëm ci agressé song gi nu ko songoon 23 juin am na yaakaar Dakar mu ne ci njeextalu enquête bi dëgg gi jib ci Casamance Abdoulaye Baldé maire diwaan la mu bëgg mooy nguur gi ubbi waxtaan nu mu gën a gaawee diggam ak MFDC askan waa tay mu ne ci xiini mi ni gënu nekkee du jàmm du fitna euh, ak cooxe it ci wàllu développement di yokkute jural na diwaan ga geneenug diwaan di Thiès kilifa yi lañu bëgg mooy gox yenn yi ñu toxal leen fa ñu nekke ndax moytu leen ak mbënd ak yu ni mel ci misaal ngent ak Medina Fall ci technique bi Aliou Diassé Assane Gueye parti démocratique sénégalais ki farandoom fas yéene tey amal ndaje mu yaa takku ca VDN bi lay doon ci meeting tey ci ngoon ñoom nag diggéen nanu lan lépp ci jàmm jàmmi senegal naka noonu fitna bañ a jugee ci kenn ci seeni militant lu may dañ leen song ca bu keroogee nag ñu sàmm seen bopp directeur de campagne Abdoulaye Wade ni waxee Souleymane Ndéné Ndiaye ñu dégg. dinañu def benn meeting boo xam ne ñu ngi ciy xaar mbooloo mu takku rek meeting bi meeting allié yëpp la allié yi ñu ngi ci benn kuréel gu ñu wooyee alliance Soppe pour toujours euh, donc ñu ngi xaar militants yi jógee ci biir réew mi ak biir dakaar mënu ma ne dinañu xaar mi personne gis naa sax ñu ma ne man maay nee naa damay dañu xaar nangam un million non pour fàttali nit ñi kenn ku nekk sa cër ci élection yi nga xam ne ñu ngi ciy jëm te ñu am ci benn candidat bu tudd Abdoulaye Wade muy dana am ci jàmm ndax ñun suñu bato jàmm rek euh, la lay dox euh, bugguñu leneen lu jàmm Euh, donc ñun ñoo yor réew mi xam nga ku yor réew doo bëgg ay doo bëgg musiba donc ñun jàmm dañuy wootee te militants yeeg militantes yëpp war nañu xam ne jël nañu les disposition nécessaires pour que kenn ku nekk fa nga jóge da nga yegg si ba Dakar incha allah fekkee meeting bi mu jeex ci jàmm nga delluwaat fa nga jógee ci jàmm kon nag loolu na ko ñëpp déggandoo xam ne du am benn débordement du am benn dérapage mm. euh, bu ñu benn militant mu yàq. quoi que ce soit sant na ñëpp daañu ñëw ci discipline toog déglu ci discipline jóge fa ci discipline delluwaat seen ay kër ci discipline ci kàttanu sunu borom directeur de campagne Abdoulaye Wade Souleymane Ndéné Ndiaye ci nenu fas yéene meeting ngoon ci VDN bi tey ci suba dina fekk ca place Obélisque ñoom ñi di waa mouvement 23 juin sumb fam ndaje ñoom it ci bëccëgu samedi tey jile euh, démb ci ndaje mu yaatu di assemblée générale nag feddali nañu ci seen ak ngir Abdoulaye Wade bañ a bokk ci élection yu ca foofee yoon yeneen lañu ci fas yéene jël ndax amunu yaakaar ci conseil constitutionnel ñu ne soxna Madeleine Sène mouvement bu candidature maître Abdoulaye waat ñoom sax ñu ngi xamle ne lu weesu korité daañu ko xeexal seen bopp Jean Paul Diaz. Abdoulaye Wade ñu dem ak moom conseil constitutionnel bu ñu demee ak moom conseil constitutionnel fi ma taxaw nii mën naa leen ne am na lu ñu lalal benn lay boo xam ne dañu koy génne on va être kon nag bu ñu perte suñu temps ci loolu nañu régler suñu problème ñun peuple sénégalais ñëpp jug taxaw ci ba su korité bu demee julli ba pare mu baalu peuple sénégalais ndax moo leen tooñ n'est-ce ba pare nag wax peuple bi que comme léegi xëccoo bi lii la buggu leen nekk candidat mais dootuma nekk candidat ci kàddu yu njiitu réew mi yëkkati woon ci waxtaan bi mu seqoon ak ëttu yëglekaay bi di la croix jëm ci ki ko wara a utu waa M23 di ko textal yi kàddu Moussa Tine yor kàddu Benno Siggil Sénégal foo faut ñu woon ko ne mi dafa am démb am fu mu aw démb ba toll fi mu toll ëllëg dina fi am te du ëllëgu doomam kese day ñaaw tey ñun ñu nangu ne doomu Ablaye Wade moo ñu gën ñun ñëpp nu mu ñu ko waxee nee yéen ñëpp sama dooma leen gën te donc ñaan na yàlla su fi nekkul ëllëg suba doom nekk président de fii kenn du ko donn ci biir réew ñoom ñu ngi woo ñi nga xam ne ci réewum Sénégal justice ak démocratie itel na leen jërëjëf soxna Madeleine ñu dëkkee fa dende ak place Obélisque ga waa mouvement 23 juin di amale tey seen um, ndaje ñoom nag tiitunu ci bëccëgu tey gi doonte uh, ci seen i xel fitna yi woon 23 juin nga ci ba tey am na fa nag ñu yëngu di jaay ak yu ni mel fas nañ euh, seen i bërëbu jaay bu nu gisul lu nu xam reportage foofee ca place Obélisque ñu dende ak moom Mouhamed Ali Mouba. 4 heures jot ci place de l'obélisque ay taximan ci wet wa ci beneen boor bi nit ñi di circuler ñeneen di feexlu ci garab yi Malick moom mécanicien la buy liggéey ci wet wa manifestation bu samedi bi xaw na ko ragal. ragal naa tuuti parce que bu fekkee day am violence moom loolu moom euh, il faut que ñu ragal quoi parce que. violence moom baaxul quoi day yàq quoi. ragal ñu yàqal ko marchandise moo tax Alpha moom dina xëy sa waaye dina tey si yëf yi. bu ñu xëyee ay huit heures et demie la ubbi mais bu ñu demee ba ñu xool ne situation bi permettre ñu pour ñu nekkaat fii comme que nous sommes face à face. ak euh, fu ñuy defee manifestation bi ça ne va pas ñu tëj rek ñibbi. ci beneen boor place de l'obélisque bi restaurateur bi di Mamadou ne ragalul manifestation bu samedi bi. non mais looy tiit. mais meeting bi c'est un composant des activités de, du pays ça daf si bokk quoi mais meeting bi warul taxam nit dëkk bi taxaw. fi ñu toll nii liggéeykat yi ñu ngi ànd ak daal waaye ba léegi manifestation 23 juin bi ñu ngi ci xel yi. Mohamed Ali Mouba njiital Xadu Alioune Tine déglu nañu ko démb ci kanamu division investigation criminelle lu jëm ci song gi ko songoon 23 juin 2011 agression googe am na yaakaar dëgg gi jib ci bu nu jeexale enquête bi Alioune Tine ci jokkoom ak Ousseynou Diagne. depuis ñeenti waxtu si ngoon. jotuma dem ci suñu assemblée générale bi sax euh, ndax convocation bi li nga xam ne moo ko waral mooy euh, agression bi ñu ma agressé ci bésu trois juin euh, bi nga xamee ne manifestation yi am na donc bi mu amee na ñun am nañu chance benn photographe boo xam ne dafa photo agression bi yépp donc film yeeg photo yi ñu amoon yëpp moom la ñuy ñëw di ko xool benn par benn euh, di xool ñi nga xam ne ñu ngi doon ñooñu agressé benn par benn nan lañ ko defee euh, di jéem a xool lan mooy seen identité ba pare tamit seet euh, ñi fa nekkoon ñëpp ak ñi nga xam ne ñooñu jàppale ak ñëpp donc identifi identifié daal ñi nga xam ne ay agresseur lañ ay témoin lañ ak ñi nga xam ne aussi Euh, dañu dimbali parce que bari na ñoo xam ni surtout am na kenn ku ci ne euh, ku ñu jàppale bu baax a baax koo xam ni sax dafa am dafa am doole mais protégé nañu yaakaar ni suñu ci ñi ñu sauvé daal ci la bokk loolu daal la doon commenté bi nga xamee ne procureur jox na enquête bi. Alioune jiital rajo ci janoom ak waa DIC RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. jot na nguur gi ubbi waxtaan ci na mu gën a gaaw ak MFDC ngir jàmmi Casamance askan wa gindiku xam ci la mu ne booba ak léegi ñu ngi ci xiini mii ni du jàmm du ay mooy gis-gisu maire diwaan ga Abdoulaye Balde doon fa amal meeting àjjuma barki démb ji ñu déglu ko àjjuma démb ngeen baal ma Abdoulaye Balde ak Abdoulaye Sambou. ñu ay jéego yu bare bare di si gërëm gouvernement bi si gërëm président de la république mais loo xam ne seetlu lañ depuis quelque man mën naa wax saa yi at que que dañu def benn pas si kanam si ginnaaw problème mu Casamance bi dañ ci war a wax a indi ay jéego dañ ci a indi ay saafara parce que aussi wulu wulu bi si suuf baax mais gën a simiti waxtaan ak nit ñi trouver ay solution yu valable yu consensuel yoo xam ne ñëpp la si teg seen bët moom la waa Casamance laaj loolu gouvernement a def si gouvernement bi la bokk mais man may maire bu Ziguinchor war naa wax si tout mooy que tay nañu sonn nañu ci conflit bi il faut que ay négociation mën a am diggante gouvernement bi a waa MFDF donc il fallait que loolu ñu mën ko concrétiser le plus rapidement possible pour que waa Casamance gën a ci situation boo xam ne fi la ñuy nekk tey jàmm suba fitna vraiment loolu mën a ci ci dund te mënu ci ci développé di ñaax aussi gouvernement bi ñoo ñoo xam ne ñoo ñuy jàppale ñu mën a def benn programme de réinsertion fépp xam ne am na conflit dina faral di am ay programme de démobilisation réinsertion amoon na fi gaa bu njëkk ba commencé nañu di jox ay taxi di def ay tool di def loo xam ne peut-être que waa ñoo xam ne waaye fi ñu jógoon ci àll bi mënoon na si jàpp mais lu ñu seetlu depuis quelque temps ou quelques années que loolu amatu Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor diwaanu Thiès kilifa seen xel ak mbébét yëpp mu ngi jëm ci wàllu ndox meeg mbënd mi nu nu koy moytule askan wi ca gox yi di ngent Madina Fall xalaat nañ fa toxalee ñenn ñi ngir saafara Cheikh Anta Diop. mel ni diwaanub Thiès lu jëm nag ci wàllu defaraat ko la ñu nekk rawatina programme boo xam ne jël nañu ko ngir defal benn aménagement lu jëm nag ci wàllu dëkkuwaay ba tax na ci am na ay programme yu yaatu yoo xamante ne def nañ ko pour quartier yëpp ñu mën leen a aménager yëkkati quartier yi nga xamante ne daanaka dafay ndox wala mbënn bi di leen sonal Alassane Ndiaye premier adjoint au maire. na ay dëkkuwaay yoo xam ne bi ñuy dëkk laajuñu kenn ñu kilifa yi autorisation. donc am nañu ba pare donc comme ni mu feeñee ci waxtaan yi nga xam ne moo fi am. mooy que tey li am solo su fekkee ne bëgg nañu bàyyil ndox mi yoon wi muy aw mooy toog ak population waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne dëkk nañ ba pare ñu seet ay pexe ba dindi leen foofu. doxal leen feneen. lu jëm nag ci programme boobu ñaar fukki kër ak juróom-ñaar da ci quartier yi di Ngent ak Madina Fall daañu leen yëkkati mu nekkit programme boo xamante ni. xool nañu ko bu baax a baax ba tax na ñu ngi ci ànd ak ñenn ñoo xamante ni ci tugal la ñu jógee. problème ndox mi bari na fa. am nay maraîchers yi fa nekkoon ña ngay dem. nit ñi dëkk ci ndox mi am nañu jafe-jafe yu du jeex seen i doom ña feebar jaare xale yi di rey bari na problème dermatologique yi bare na problème mu pali bi bare na ci li ñu xam ci saas ya ñu ñëwoon fii eh, ci xale yi fii ci mairie bi defoon seen étude eh, fas yéene ko jébbal élu yi partagé ak ay recommandation yu xam yu am solo yoo xam yu réalisable la pour ñu mën cee sukkandiku ba mën a changé duñu wax aménagement te waxuñu waxtaan ak askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñi ngi ci yenn quartier yi te ñu leen a fas yéene yëkkati population yi am nañu ñu dellu si Ndakaaru pooram Ndakaaru ministre Euh, bu ñu dénk wàllu énergie euh, di Karim Wade ma nga fa woon dem doon nimmiku euh, bateau bu xeetu ca Norvège bu nekk ci pooram Ndakaaru bateau boobu ak société norvégienne bi di Delphine ministre d'État Karim Wade jàpp ne li nga xamante mooy opération dina nu may Sénégal ñu gën a mën a xeeñtu pétrole gi suñuy wax ndax ci foofu fekk tardé da ca am boobaak léegi jo maxoon na nga fa woon réewu Afrique yi la bato boobu di daal di wër Guinée Bissau Guinée Conakry Sénégal ak bi nga xamante ne moo yebal bato lu toll ci fukki milliards ak ñaar la nar a def ci liggéey boobu ngir ñu gëstu xool ci suufu géeju Afrique de l'Ouest ndax mën nañ fa petrole pétrole Dolphin ci boppam lëkkaloo ak kër gi di Petrosen Ibrahima Mbodj mooy njiitu Petrosen. day am technique boo xam ne moom lay utiliser pour xam li nga xam ne ci suuf si nekk ci biir géej gi ndax am na ay lu demee ni ay euh, pétrole wala gaz donc loolu rek rek mooy liggéeyam. parce que ñun données yi ñu fi amoon dafa nekk données yoo xam ne dafa xaw yàgg donc bateau bi ci technique yu gën a moderne moom lay utiliser pour euh, euh, pour seet données yooyu nga xam ne euh, pour ñu mën a gën a xam li nekk ci suñu biir géej ndax réew mi am na pétrole wala déet li tax ñu ñëw fii ñoom dafa fekk ni que ñoom dañu gëm ni que fii am na lu fi nekk même Mauritanie bi ñu jegee bërki démb lañ fi am ay découverte wane na ni que suñu zone bi Euh, am na euh, potentiel pétrolier boo xam ne xëy na boobu léegi dañ ko développé wu. ca biir bato boobu la ministre euh, énergie di Karim Wade daal di dugg ngir xool liggéey boobu nga xamante ne bato bi mu ngi koy def ñu gis. la ñu a def liggéey bu mel noonu Karim Wade ne li moo tax Sénégal tardé lool ci xool ndax pétrole am na fi Karim Wade ne bu liggéey bi anto du ñàkk petrol bari lool ci réew mi ci lu jëm ci mbirum actualité taskatu xibaar jot ko laaj ci loolu Karim Wade mbirum pétrole rek la mën a wax tey. jo Macron ñu koy gërëm ci wàllu xibaar jot nañ fi xibaar ñeel njiit ak Amérique euh, Barack Obama ak ñenn ci njiiti Afrique yu a dalal ay bés bii di ñëw bokk na ci Alpha Condé bu Guinée Conakry Alassane Dramane Ouattara njiital Côte d'Ivoire Mouhamadou Issoufou jiite Niger waaye gisuñu ci turu Abdoulaye Wade bu Sénégal bokkul ci yooyu audience njiital Amérique Obama nas ay bii di ñëw diggam ak ni nu ko waxee njiit bu Guinée Conakry Alpha Condé Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire Mouhamadou Issoufou foofee ca Maison Blanche ca Washington. RFI Sport. wàllu sport ñu ànd ceeg Ndate jërëgeen jëf ñu dooree xibaaru tàggat yaram yi ak wàllug basket di xamle ni suñu gaynde yu jigéen yi ci wàllug basket jot nañu ni ki démb euh, caabi yi nga xam ni moom mooy mandargaal kër yi nga xam ni moom la leen njiitu réew digoon cérémonie bi nag mi ngi amee woon ca palais de la république ci kanamu njiitu réew mi moom sax moo leen jébbal yooyu caabi yi loolu di mandargaal rek neexal bi nga xam ni moom la ñu jot gannaaw bañ jëlee champion d'Afrique mu nekk loo xam ne nii gone yi rafetul nañu ko bu baax a baax Ndey Njoolaa Njaay ak Maam Jojo Diouf di ci àddu di micro Cheikh Tidiane Diagne. mbégte bu bëri parce que boo toggee ci jigéen ba toll sa carrière basket bi di waaj a jeex président de la République yëkkati caabi may la en tant que jigéen wax dëgg fa neex yàlla mbégte bu bëri la pour ñun ak suñu waa kër parce que neex na lool ci xol nga jël basket pendant quinze années sa dernière année de carrière yi des nga recevoir caabi kër neex na lool. stimulant la boo parce que dina doon source de motivation suprême te neex na lool ci xol daal avant nga jouer match yu mel ni Coupe d'Afrique nga recevoir lool ci président neex na lool ci xol. sant yàlla ñu ngi kontaan vraiment si li ñu jot caabi euh, yi xam nañ ne que lii motivation lay doon si ñun parce que am na yeneen échéance yu ñëw xam nañ Euh, ak euh, dëkk bi peuple bi yëpp ñu ngi suñu ginnaaw donc vraiment kontaan nañu. wàllu football renaissance bu ndakaaru moom jàll na ca quart de finale ci coupe de la ligue ci match retard boo xam ne ni mi ngi jëmoon ci huitième de finale yi ñu football ko niki démb moom daan na lii di ñaari tali lool nag gannaaw épreuve tiro bu juróomi bal la ñu dugal waa ñaari tali rate ñaar dugal ñett gannaaw téeméer ak ñaar fukki simili yee ñu football ñaari équipe yi dañoo témboo woon ku nekk dugal sa moroom benn renaissance dina am comme adversaire ci quart de finale Ndiambour bu Louga football ba tey ñu àddu waaye bi yoon ci wàllug lig 2 ñaar fukkeel ñetteelu ay bés biñ doon dabu ca diwaanu ko Saly jàmbaar moom dafa daal di daan yëgoo benn bal ci dara kon jàmbaar ba léegi moom moo jiitu ci raw gàddu gi ci Ligue 2 boobu. ñu jeexale ci wàllu natation di FEI fédération sénégalaise bi nga xam ni moom moo yëngatu ci li nu mel ak ligue bu ndakaaru ñoom daan nañu amal niki tey jii première étape bu circuit eau libre 2011 ci yoof Tongoor lañ koy amalee course ba nag nañ ko amal ci junni ak juróomi téeméeri mètre ñi di compétiteurs yi nag maanaam ñooy bokk ca course boobu bu ñetti waxtu ci ngoon jotee lañ leen woow foofa ca plage bu Yoff Tongoor loolu mooy xibaaru tàggat yaram yi jër geen jëf ci déglu bi. jërëjëf Ndate ci kanam tuuti ñu àndaat ak moom ci fànn weneen wàllu caada gi RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom ak RFM. kump tàggoog nag yéen ñu yegseeg yéen ci nataal bi tey jii ma nga ñu yóbbu ca Fatick dëkk bi di Ñaaxaar chef de village ba lañ leen bëgg a xameleel Ñoxor Diouf lay wuyoo ñu ànd ceeg Youssouf Bodian maay Ñoxor Diouf de naissance en vingt six mai nag booba daa fekk sama ñoom papa mandi woon xamatul ba dëkk laa juddu borom dëkk la ñaari fukki at ak ñaar a ngi nii mu fonk ko lool ndax da ko donn ci baayam waaye nag mu yokk ci nii askan bee ko faloon jeudi le vingt cinq décembre quatre-vingt-huit qu'on m'a nommé village devant peuple du village. boobu ba léegi Niakhar Diouf li ko soxal mooy yitte askanam donte sax jafe na lool. si c'est des personnes yoo xam ne dañuy am conflit euh, damay woo quelques notables dans le village. nous rencontrons fi jéem a discuter entre les deux personnes là bu réglé baax la bu réglé ma dem arrêtement rendre compte. liggéey boobu yëpp këram la koy defee ñu fekk ko ci ëttam mu tëdd ci ab lal bu ndaw waaye lal bu ndaw bi wuute na lool ak yeneen yi. fii nga ma fekk mooy sama bureau. 94 la guide Dakar, je ne suis plus en forme. Jusqu'à présent, je ne suis pas de ma santé. juróom-ñetti fukki at ak juróom karaw yi weex bu desee ay tuuti bañ sunu góor gi daa màgget boole ci feebar moo tax it mu yebal ab ndaw bu ko teewal ci ndaje bi amoon ak njiitu réew mi. Abdoulaye Wade problème li ñu observé loolu la ñu wax à partir du mois de janvier. Euh, nañu percevoir un petit salaire. on sait pas <laughs> waaw mbaa gëm nga li leen président digoon ci ndaje boobu de. <laughs> il se peut gis nga c'est l'affaire xam na affaire politique. pour aller faire de ce que je pense. nous ne désespérons pas. Euh, ci gis-gisam lu baax la ni njiitu réew mi bëgg defaraatee seen nekkin waaye nee na du soppi dara ci gëm-gëmam politique moom du ko defaral kenn. man je ne suis pas politicien je si suis là pour le peuple de mon village. Youssouf Bodian Niakhar rajo Futurs Médias. Youssouf Bodian doon ñu xamale góor gi ñoxo Diouf euh, di chef de village bu ñaaxaax ca Fatick ku ñëw si yéen ci wàllu caada gi ànd dal leen jàmm ci xibaar yi ñu jagleel caada ak cosaan di xalam. village des arts di wane xarañu gone ya mu yore lu ci toll ci fukk ak benn di ay artistes ñoom ñi nga xam ni gannaaw ak tàggat goo xam ni nii ci di village bi defal na leen ko daal nañuy expo maanaam wane. nag am talent bu baax a baax ñuy xamal sax ni am na ay raaya yoo xam ne nii am nañ ko ca bitim réew seeni Diagne biir salle bi ñuy gaaralee seeni liggéey waaye xarala yi du tollook juróom fukki tableau ñoom ñu daal di ko wékk ci ay miir yu weex ñi peinture mu di ab couleur boo xam ni bi wute lool ak li nga xam ne moo fës ci biir liggéey euh, plasticien yi mel ni Mahmoud Baba Ly moom ndongal daara bi woon di fàttaliku ndawam tableau bi ñuy janoon ni ñu wax ci àddunaay xale yi yoruñu leen yor bi ñu leen war a yor parent yi mënatuñ xale yi ñu ci ay difficultés yoo xamante ne te mënuñ ci génne seen bopp jaaxle ñoom ci seen bopp jaaxle nañ seen avenir dara leeru ci peut-être am na ci espoir mais dara wóoru ci beneen waaye xarala tamit di Mohamed Ndiir moom dëkk jënne bi nekk ci Mali moo ko yéem dëkk bi nga xam ni xam-xam dafa fekk baax waaye tamit ab taarix bu yàgg ci biir jëflante ay xeet. bërëb la boo xamante ne ni xeet yu bëri dañ fa daan daje yi nga xamante ne ni ñoo jóge sowu jant yi jóge yi jógee bët gànnaar ak bët sow yëpp dañ fa daan daje. waaw di weccantay xalaat. xeet bi aussi tamit di di di di jaxasoo ci seen biir daal maan village des arts nekk na tamit bërëb bi nga xam ne juróom fukki encadreur teew foofu te ñu ràññee ci kii di responsable galerie bi di sa Diallo mu bég lool ci liggéey xale yi nga xam ne ñoom lañ doon tàggat encadreurs yi ak pensionnaires yi lenn moo leen yitteel ñu am ab jàppandal bu am solo ngir ñu mën a fësal seen liggéey bu baax a baax ñu mën ci tamit jëriñu juróom-ñett fukk ak ñett ci ay site ak ay monument historique ca diwaanu ko Kaolack recensement bi ña ko def moom moo di waa chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu diwaan ba loolu nag bokk ci bëgg-bëggu chambre de commerce ba ngir dekkil ak a wane patrimoine culturel bu diwaan ba maanaam la mu dëxëñ ci wàllu aada ak cosaan lañ ci bëgg tamit bokk na ci ci diwaan bi di Kaolack nekk boo xam ne nii ñi di touristes yi daañu ko teg gët bu baax a baax site yooyu ak monument ñii la tëddee lu toll ci ñaar fukk ak ñeent nekk ci département bu Kaolack ñaar fukk nekk ci Foundiougne fukk ak juróom ca Nioro juróom-ñeent ca Fatick juróom-benn ca Gossas juróom ca Kaffrine ak ñeent ca Guinguinéo Mobi Ciné moom mooy moo di programme bu yees bi nga xam ni mairie bu Ndakaaru daal dina koy taxawal ngir dekkilaat cinéma ci biir Ndakaaru loolu nag ñu koy amal ak ay programme séance projection film yoo xam ne nii public lañ koy def ak gratuite ay séance projection film yoo xam ne nii dañ koy def ci gox-goxaat yi te kenn du ca fay dara programme boobu nag daañu ko door ci samedi ji bu 22h jotee ci loolu nag lu toll ci ñetti téeméeri film ñu ko wane ci diiru vacances yépp Aminata Goudiaby. sélection bu jaar yoon la ñu def ngir tànn film yooyu ñu toll ci ñetti téeméer ñu jëlee leen ci réseau sud africain bii ni IMNET projection yi nag daañu ko amal ci ay école ay centre socioculturel ak ay plage yu nekk fii ci Ndakaaru programmation bi nag am na buñ ci jagleel xale yi mu di àllarba ci ngoon yi séance yi nag daañu ko continuer vacances yi yëpp li ci gën a neex moo di ay documentaire daañu ko amal jagleel ko euh, dunduk Mohamed paix et salut sur lui loolu nag weeru koor gi lay amee programme bu ciné bi nag ñi ko financé humaine ñoom nag li ñu bëgg moo di dundalaat li nga xam ni moo di cinéma ci ville de Dakar projet bi bëgg na it tàggat ay xale tàggat gu am solo ci wàllum cinéma programme bi ciné boobu nag dina tàmbaleek le mu di ab filmu Ousmane Sembène ñu jeexalee ak musique di xamle ni rappeur français bi nga xam ni dafa fekk baax ca Comore ñu koy wax Rof moom mi ngi ci Ndakaaru ay fan a ngi nii moom artiste bi sax nga xam ni bokk na ci ñi xarañ ci nga xam ni moom lay yëngu foofa ca diwaanu ko France dina amal ab spectacle ci samedi ji ca CICES moom nag niki àjjuma ji ñu génn janoo woon na ak taskatu xibaar yi jërë ngeen jëf ci déglu bi foofu la ñuy yamani ci xalam di leen jox daj àllarba ji di ñëw ci beneen numéro.